journée culturelle édition 2022 bu école Serigne Moustapha Bachirou ci diwaanu Touba ren Moussa Thioune moo nekkoon parrain bi Moussa Thioune àndoon fa ak délégation bu am solo. ta Mariama ñu ngi lay sant baax au nom di population Touba bépp ñu ngi lay sant ndax xale yi fi jàng yëpp Touba lañ dëkk jëkk dëkkuñu feneen furu Touba kon mën nañ la remercier ci au nom du population Touba au maire de la ville de Touba Abdou Lahad ndax lii lépp moom tam. ci teem la bokk ndax fii ñu ñëw yëpp ay waa këram ñoo fi nekk man mi ngi wax man ci moom laa nekk di conseil spécial Abdou Lahad Ka kon donc moom tam mën nañu moom lañu fi teewaaleel kon nii li général wax na li ci laay njëkkee mooy xale yi nan mu ci jàng te xam ne jàng moom sëñ Tuubaa moom la woote woon pour ñu jàngal xale yi yar leen te loolu tam tax école bii sëñ Bassirou Mbacke ñoom ñoom ñu ngi ci. ci miir école yi la bokk. ndax bare na xale yi fii amee xam-xam bu am solo boo xam ne fii leen génne kon taa Mariama vraiment ñu ngi lay remercier di la sant bu baax ñun nag dañoo am suñuy partenaires yoo xam te ni luñ nekk ñu nekk ca lu ñu dugg ñu dugg ca sëñ Fallou Mbacké transitaire nekk Ndakaaru di xaritu président de la am taxawaay bu am solo fii ci Touba di sëriñ sëñ Touba naam burtoon ak président mi xam ne xaritam la sax lu mu nekk mu nekk ca di sëtub sëriñ Tuubaa lu sëriñ Tuubaa nekk maam di sëtub sëriñ Tuubaa waa kër sëriñ Tuubaa dëkk yi dëkk bi kon boog lépp loo xam ne taalibi sëriñ Tuubaa ngi ci moom la ci bay waaram bu baax a baax sëñ Fallou Mbacké nag jël na engagement wax ne école bii lépp loo xam ne ay fourniture la scolaire incha allah rabbi dana ko fi indi jàppale ko école bi ndax tam loolu mooy waru garam dañ leen jàppale ci ay fourniture ay ardoise ay ordinateur yooyu yëpp incha allah dañ ko fi indi jox directeur école bi mu xam ne sëñ Fallou Mbacké indi ne ko jàppale ko école sëñ Moussa Bassirou kon sëñ Fallou Mbacké ñu ngi koy ñaanal ci barke maamam lii mu xam ni sumb na ko ci Touba di maye ay ndox ay courant ay jàkk yoo xam ni gëj na maam ban ko tàmbalee yàgg na mënuñu ko eggale mu ciy dox Waru bare bare bare bare ya yaakaar naa ndox rek lim ci gun Touba ren ji ëpp na 10 km ci lo xamni moko def ci moyen bopam xamni ni Macky Sall xartam la lepp mom la war ci rew mi mu ni kat fu mu mënta egg nak fa eggale jappalé ko ci lolu kon bok seigne Fallou bakay ñu ngi lay remercier ci population Touba bi li nga defal école bi amna solo te ñu ngi ciy sant la gërëm di ñaan sa barka maam man ren bu deene nga man ko. tay dama leen di dalal jox leen seen gëdd. souhaité leen la bienvenue parce que li ngeen di def defar am réew la réew mi ñoo ko bokk jàmm rek lañ fara ñaan jàmm fi xew incha allah te moom la fi ñëpp yaakaar loolu nag kon sëñ Moussa bu taxawee nii ñun dañ koy féliciter gërëm ko. ana nag lii ngeen def dañ koy rafetlu dans le cadre d'une mission de l'école ngeen ko def mission publique le président de la république ngay góor ngay jigéen koo mën a doon Sénégal mooy sa président. jàmm la ko ñëpp di ñaanal naam bokkuñu option politique wante jàmm lañ ko ñaan baa bu amee jàmm rek ma am jàmm maari taal bu leneen noonu ket kon ñun ñëpp ah, ñoo ngi ci coono ba kon nag kenn nun xaaluñu loolu lan xool mooy ko defar lu baax te yow Moussa ak équipe bi nga tey lu baax ngeen fone man maa koy seede man Gallo Niang li ngeen def dañ koy saluer di leen ñaanal li ngeen bëgg ngeen am ko parce que mission bu baax ngeen dox lu baax ngeen dox ñoo ngi leen di gërëm ci turu directrice bi di jël acte ci li ngeen def c'est un acte très noble. ci boobu daje général jén Gaye bokkoon ci délégation Moussa Thioune potoxlu ci ngir dal ci kaw Ousmane Sonko moom mi mu jàpp ne mi ngi sooxal njàng mi ci diwaanu Sénégal. lii nag liñ ci mën a jànge mooy ay parent d'élèves yu responsable ndax xale yii kenn du leen def loo concert casserole xale yi kenn du leen génne ci ay mbedd. parce que man sama doom ma nga ca école ba di jàng Moussa doomam tey moo tax ñu paree ne ko fii kon yéen parents yi na ngeen yeewu seen doom yi lii mooy tax bu ëllëgee ñu am avenir man leen jàppale ñu bañ a topp nag un homme bi nga xam ne day def politique te gëmul ne ay urne war na koo mën a jox ay élection jàpp na ne violence moo ko mën a jox ay élection waaye nag protéger na njabootam ba ñuy jàng ci ay écoles yu baax ay ay ay oto yu baax di leen yóbbu waaye doomi jàmbur yi la bëgg a woo ci mbedd mi di leen xeexloo ku ci dee perte nga kon nag ñoo ngi ñaan Ousmane Sonko mu delloo si waat xelam bu baax a baax xam ne xale lii mooy tax mu am avenir na dimbali nit ñi bu la yàlla mayee ay nit sopp la wala yàlla may la nga def ay pexe ba ay nit topp la li gën mooy nga jëme ko fu baax pour sa dëkk mais nga jëme ko fu baax ngir sa digganteeg tamit aussi sa borom te xam ne ëllëg du añ du reer mais lu mat a sedd la